nekk ay xale yoo xam ne at bu jot ñu seet suñu waaye ñoom màggal ba màggal lañ leen di dégg en ah, bisou ah, eh, ñoom Babacar Diagne waa xidmatul lamp a bàyyi leen bu ngeen ñu soxlaa ñëw bu yëpp passé duñ leen dégg ba yëf fi ñëwaat ngeen xaritoog ñun yooyu rafetul dama koy préciser waale pour artistes yeeg ñëpp waaw yooyu neexul day naqari naqari ci xol daal yooyu day kii daal day bineegar xol si waaw mais waaw Babacar Diagne Babacar mere naa leen de. yéen daal màggal ba màggal laa leen di dégg. alhamdulilah. ah dete coon ba ko yuusi invité bi. jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima. Pape ñu ngi leen di ziar ñëpp. di leen jox seen yeeguwaay. day tub wér na Pape. yaa ma waxoon man dama leen man dama leen mere. parce que yéen màggal ba màggal rek. non bul mère ah sawaay sawaru yeeg sawaru si de. wala sabar sabar bi rek mooy seen yitte. wax nga dëgg de Pape. macha allah ñoo ngi koy dugg wér nag ñoo ngi koy dugg wér. de damay toog di la xamal ni nag. Eh. affaire bi moo demee noonu nag. waaw liggéey beeg yooyu. waaw liggéey bi jot amul jot amul sax. waaw jot amul man maa bëgg ay wax rek. man nii laa mel dama jël kaa yi di ko topp ci foo di waxaale samay yëpp yooyu baax na. dëgg la ñu ngi ziar plateau bi yëpp génn fii laa. ziar bu ah. mu la fi nag. waaw dama waaw Eh, waaw hmm. ah. li mais mais li tax ñu li tax ñu bég ci yéen at bu hmm. jot. Euh, da ngeen di euh, jàppale nit ñi surtout ci wàllu dem beeg dikk bi. di sensibiliser nit ñi. Hmm. Euh, di intervenir di dépanner ñi màggali oto bu paan. paan ci yoon bi veille bi. ak bi su màggal ak lendemain màggal ñoom ci yoon yi la ñuy taxaw rek. oto bu paan ñu ñëw réparer la te doo fay dara. loolu lu exceptionnel loo xamante ni yàlla na leen. leen euh, ku tedd ki fay euh, ren euh, ñu dëgmalati màggal ngeen tegati programme boobu Babacar comme ni ñu ko daan defee rek nga xam ne ren boo xoolee ñu ngi suñu quinzième édition mm, mm. ñu ko dalee def rek léegi macha allah ñu ñaan yàlla rek di ko def ay at di ko fekk yu bëree bëri allahumma amiin comme d'habitude rek ni ñu ko doon defee mm-hmm. mm-hmm. cinq garage la yoo xam ne dañoo mobiliser wu mm-hmm. ay jeunes ñoo xam ne nii dañuy liggéeyal ku tedd gi affaire du màggal la koy day yem gàmmu day dem Popenguine comme chaque noonu la ñuy mobiliser woo dem jeunes yi nag cinq garages la yoo xam ne nii ñu ñëw mobiliser wu ku si nekk GIE la am nga sa carte membre boo duggee si affaire bi comprendre nga am nay kilifa nag yi nga xam ne ñoo nekk si biir si cinq garage ku si mel ni Ibulaay ku si mel ni Mamadou Niang ku si mel ni Serigne Sare ak Souleymane Lam ak Ahmed bi nga xam ne mooy defar film bi nga xam ne ñu dañoo mobiliser wu rien que pour dépanner ñi nga xam ne ni ñoo nekk diggante Touba ak Dakar. est-ce que am na ci euh, ay mandarga yoo xamante ne moom ngeen di am. pour que nit ñi di leen xàmmee au moins bu ñu paane ñu mën leen woo. waaw am nañ ci ay mandarga yu bari parce que association GIE bi xidmatu Lamfal la tudd. dañuy def ay track d'ailleurs def nañ ay sax ren ay flyers yoo xam ne dañ ci def numéro yi. ñu def numéro yi pour di ko jox ñi nga xam ne dañoo. dañuy dem ci yoon wi. kuppaan mën a woote. mën numéro yi ñuy joxe tamit fii képp ku ci woote. dina la dina la dina la rejoindre foo mën di nekk. si la ñuy déparé ba Touba kuppaan dina la dépanner. macha avant ñu yegg Touba dañ ñuy woo am na ñoo xam dañuy dugg ba biir Touba Park. ñooñu dañuy ñuy woo liste boobu dañ koy topp bu ñu duggee biir Touba du tax ñu topp. am na ñoo xam ne càmbox la ñuy. dañuy wër mhm. dañuy wër biir tuubaa di dépanner ñooñu encore ñi nga xam ne dañoo paan ñëw ba Touba war a ñibbi si waat ñooñu ñëpp dañ leen wër di leen dépanner. paane càmbox ba Ndindi. amul ay gilet yoo leen di sol pour que nit ñi mën leen xàmmee de loin ou bien da ngeen di lii ngeen di sol. comme ça ay xam ne dañ bind. Ah. ba pare ñoom sax bu ñu roobee ku paan du ñu xaar ku leen. du xaar waaw du xaar ku ñu gisee mu taxaw rek léeg-léeg nga gis ku taxaw sax fekk dafa bëgg a noppalu wala day mais yan conseil ngeen di joxe pour que nit ñi au moins wàññi paan yi ci yoon bi yoo xamante ne war nañ ko def ci oto yi surtout waaw mooy ñuy joxe chaque jour en plus def ay révision yoo xam ne da war a dem garage xam na tey ñoo xam ne ñu ngi daw ci dëkk bi fii mën ngay daw di def doo am benn problème fekk def am na paan bu si nekk demoo xool ko si nga boo jógee ak Ila Touba bi autoroute bu am 100 kilomètres amul Dakar fii Sénégal foofu rek la am xam nga boo jógee daw rek yaakaar ni sa oto mi ngi dawee si dëkk mi ngi dem ñëw nii mm. normal na boo tegoore si autoroute bi boo dawee benn kii rek mu feeñ surtout kon balaa ngay dem war nga ñëwaat xool sa oto mm. vérifier lépp ak tout ça door a dem mën nañu am numéro téléphone yi waaw mën nañu am numéro téléphone 77 220 25 27 bi sa bos la

jëlal beneen bi. jox ma 77. Ah, 605. Mhm. Baye Fall 27 54. macha allah nga xam ne nga xam ne numéro yi képp ku ci woote. Hmm. foo mën di nekk dinañ la fekk foofu dépanné la. li ko tàmbalee veille veille màggal jour màggal ba lendemain. ba lendemain màggal parce que ndigal yi noonu la demee woon. macha allah mais man tamit dama leen di laaj ban jafe-jafe ngeen am ak loolu leen bëgg ñu yombalal leen ko. voilà surtout. waaw dañuy bu ñu duggee ba biir Touba. Hmm. dañuy gis oto boo xam ne day ñëw ba jumaa ja paan fa. Hmm. bu ñu ñëw ba jumaa ji paan fa bloqué circulation bi yëpp ñun ñu war a dem dépanner pour ñu jàll rek problème lay doon bëgg nañ loolu tamit ñu defal leen ay accès quoi yoo xamante ne accès yoo xamante ne spécial ay laisser passer affaire te am na ñoo xam ne nii ñun comme GIE bi ñun ñuy doxee xale bu si bokk lu mu ndaw ndaw chaque mois day joxe 1000 francs nga xam ne année bi day nekk 12000 ñun ñooy jàppale suñu bopp. macha allah ñooy defal lépp suñu ñoo xam ne nii dañuy gën a dooleel. Mm-hmm. jënd ay machine ak yooyu jënd ay machine jënd ay yoo xam ne nii. Mm-hmm. oto bu parfois da nga fekk oto bu paan. Mm-hmm. doo am noo ko wala doo am boo ko teg. milliardaire Serigne Touba yaa ngi bëgg nañ voilà ñoo xam ne nii ku ñu jàppale bu baax a baax. Ah. ci liggéey bi ñu nekk parce que ans yi nii ñun nii la ñuy dundee. surtout ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ma tudd nii muy Mamadou Niang Ibulaay Diagne ak Serigne ak Ahmed ñoom ñooñu ñoo ñuy jàppale. ñeneen mm. ñi nga xam ne moo ñuy jàppale mooy Baara Clean Oil chaque année ma tudd ko fi. ku ñuy jàppale la moom moo ñu jox gasoil a retour Baara Gaye kooku dafa baax Baara Gaye ak ak rakkam Amet Naar. comprendre yeneen pièces yi nga xam ne ñoo ñuy jox Touba Darou Manane Cheikh Naar. Ah, da leen jox ay pièces dañuy jox ay pièces yu neuf la ñuy yóbbu yu bees tax. bilaay di Baara baax. waaw. donc pièces yi tamit ñu leen bëgg. ak tay yow mën nañu woote ci numéro bi. waaw mën nañu waaw ku ñu bëgg jox pièce wala nga bëgg jox loo xam ne nii mën nañu ko yóbbu mën nga woote si numéro yi boo ko wootee ñu jël ko yóbbaale ko 77 220 25 25 77 648 31 61. 77 505 21 36. ak 77 605 27 54. dëgg la mu am solo. jaajëf mu la bëgg nijaay nijaay benn kii boo xam ne nii. Mm-hmm. benn genre léeb la bu ndaw rek. léeb bu ndaw rek dama la wax ci loo xam ne dëgg la. ndaw xaj dafa daje golo. Mm-hmm. daan na ko damaa bëgg nga wax ma ñetti dëgg. Mm-hmm. sinon du ma la bàyyi nga dem. ñetti dëgg ñetti dëgg golo toog di ko xool ne ko sa biir daa fees su feesul woon ba tey yàpp nga ma mun ko wax nga dëgg mun ko beneen bi hmm. su ma jege woon garab yéeg naa si du ma la sax wax ak yow mun ko wax nga dëgg mun ko beneen boo ma bàyyi ma dem dootoo ma gis ba ilaa yow mi diin nga xam ne dëgg rek moo am solo wallaay wallaay dëgg la di dëgg la mbay ci boo garab jege woon ñu ko xaar muy waxtaan ak moom caay bu kool bi feesoon tam du ko laaj yooyu Fall kontaan nañu mu dem tamit dootul ci yëpp kontaan bu baax na Pape kontaan nañu waaw di sant bu baax fii dafa nekk foo xam ne sama kër la saa bu ma jógee fii hmm. wala bu màggal di jub ñu bari dañ may woo. mais ah, walaay azim sama ngor. may moom may dem beneen télé xamul tax eh, eh. dama waroon teele yëpp. Hmm. mais fu mu dem dañ may fay ba mu des fii. Hmm. fii rek laa ñëw defal ma gratuite moo tax xoolal saa bu mu fi jógee. pare naa fi. saa bu may ñëwaat tamit fii rek laay ñëw. waaw maa leen di bu baax nag fii leen ñaanal nag télé bi jëm sa kanam waaw lépp luñ ci am rek ñu bokk ko barke Seydina Mohamed barke maam Cheikh Ibrahima a di ziar bu baax nag sama yaakaar téye la sëñ Basirou Abdoul baax soxna sama famille ñëpp maa leen di bu baax a baax déggee Fall takk jóg takk jóg takk jóg takk jóg safar la wax merci en tout cas ñu ngi leen di encourager ñun moom dañoo bëgg ci seen taxawaay euh, jël seen liggéey ak seen dooleeg seen xam-xam euh, di ko joxe noonu gratuitement ci seexul barkeb Cheikhul Khadim mënuñu lu dul rafetlu ko euh, ñun nag waxatuma sax màggal mais si siyaar sax bu jotee aéroport yi dañuy fees yàgg naa koo wax saxaar si wala ngaan ñu jiital bépp waruwaay bu ñu duggee suñuy woto nag dañuy summi suñuy mbaxane toog suñuy walis fees dell ak xaalis ñu jëbal ki fi toogal Serigne ba jaral nañu ko donc ñoom xam-xam la ñu yore ak professionnalisme jagleel ko taalibe yi ci lendemain màggal euh, on les encourage puisque chaque année euh, ñu ñëw seet si ñu pour sensibiliser mais en même temps joxe euh, seen ay numéro de téléphone pour ñi nga xam ne ni ñoo bëgg ñu dimbali leen ci yoonu màggal gi màggal gi nag télévision Futur Média ngi ciy wàcc lu am solo d'ailleurs kilifa yu groupe Futur Média ci directeur général bi Birane Ndour xëy nañu tey waree fii Dakar pour dem Touba seeti xalif bi yóbbu àddiya yeeg ñoom seen xam naa bu ñu yeggee fii ci kanam jëlee comme image. Mm. Euh, dinañ leen ko won mm. euh, donc ci barke màggal googule itam ñu ngi préparé.